waaw déclaration bi lépp rek dafay jëm ci booloo boo xam ne li ëpp ci transport bu département bu Mbacké ak Touba booloo nañ ko nekk ci ginnaaw Serigne Cheikh Abdou Mbacké moom Serigne Bara Doli ak Serigne Abdou Mbacké Ndaw bi nga xam ne mooy maire bu Mbacké ci élection locale yi nga xam ne moo nekk ci sunu kanam muy maire bu Mbacké ak conseil départemental pour wax ne rek. ñun waa transport bu département bu Mbacké ñun ñëpp maase nañu àndandoo waxtaan ba déggoo ci buñ ci eggee ñoom la ñuy àndal ñoom la ñuy jàppale ba fal leen ci kuréel yi nga xam ne moom la ñuy yóotu waaye dama ne élection locale yi ñu dëm dëgmal kenn du duñu tànnal suñu ay candidat ñun te département bi lañ dëkk ci département bi lañ dëkk di yëngatu ci transport ñun gis nañ ne suñuy jafe-jafe ci Mbacke Abdou Mbacke Ndaw lim ci man keneen mënu ko ci. parce que waaw parce que Ndaw moo dëkk Mbacke moom la ñuy gis bu ñu amee jafe-jafe bu ñu amee bëgg-bëgg moom la ñuy gis moo ñuy saafaraal suñuy jafe-jafe kon moom la ñuy àndal. Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly nag dama ko jëlale parce que ensemble ba mu nekk ñëpp gis na ni muy taxawoo département bu Mbacke ñëpp gis na ni muy défendre transport démb ak bërki démb tey doog a ñëw kon ñu jàpp ne ñoom ñaar bu ñu leen gungee ba ñu am li ñu bëgg. li ñu bëgg ci transport bi nga xam ne ku ne xam na ne suñu njiit yi suñu kilifa yi lu ne ñu ngi ko ci de pour transport bi baax waaye dafa am loo xam ne pour ñu mën ko faaw dañuy bokk ci instance de décision yi maanaam bokk ci mairie bu Mbacké yor commission des transports bokk ci conseil départemental bi yor commission des transports bu boobaa waa transport lu ñu bëgg dana mën a egg waaye tam ñoom lépp lu ñuy mébét ci ay projet dinañ ko mën a waxtaane ak ñun ñu wax lañ ci suñu gis-gis ak suñu xalaat bu ko defee bu ñu ko jëfee transport mën a ci kanam waaw li ñu bëgg ñun dafa bari bokk na ci transport bi ñu organiser ko ñu am transport bu moderne bu mucc ayib boo xam ne clients yi seen xol dana mën a sedd ci li nga xam ne mooy transport bi bokk na ci itam ay formation de renforcement de capacité parce que formation bokk na ci seen ay compétences transférées kon bëgg nañ ko ñu jàppale ci li nga xam ne mooy formation mais li nga xam te mooy sunu gare routière yi itam bëgg nañ ko nu ci jàppale comme ni ko président Mbédé Ndoye waxee ba ne gare routière yi nekk yoo xam ne dafay mucc ayib même nga xam dañuy yëngatu ci urbain ni nga xam ne nekk camion virage yi suñu taxi yi nga xam ne ku ne xam ne ne taxi lañ yoo xam ne réglementé wuñ bu boobaa itam ñu mën ñu si jàppale ba mu nekk taxi yoo xam ne dafay réglementé wu. ñëwoon Mbàkke fekk si fii ñi nga xamante ñoo yore transport si département bi ngir engagement yi nga xamante ni jël nañu ko ñu fésal ko àddina bépp yëg ko muy engagement boo xam ni dañu koy rafetlu ndax ku ne xam na ni àgg nañ foo xam ni kenn ku nekk war ngaa jël say responsable pour sa avenir ak sa avenir njaboot pour ëllëg moo tax bi ma ñëwee ñu ànd ak monsieur le maire Abdou Mbacké Ndaw honorable député Kiné Mbaye ak ñun àndal yëpp fekk fi ñi nga xamante ni bokk na si ñi ngi xam ay kilifa lañ ak ñi ngi xam ñoo yore transport si département bi yëpp ñu wax ñu seeni soxla ak seen i jafe-jafe seen bëgg-bëgg pour ëllëg ak yaakaar gi ñu am ba porte suñu choix si ñun duñ mën du sant yàlla ndax choix bi ñu porté dana le meilleur choix dans le département mooy Cheikh Abdou Bara Dolly Abdou Mbacké Ndao kooko yaakaar naa képp koy tànn yaakaar naa doo gis ñooñu du tànn ñeneen ndax doo gis nen di wuti pombeteer boo xam ne dafa nëb te nee naa leen li tax que maanaam tey ngeen tànn choix bi mu gën a leen choix bi nga xam mooy borom bopp fas bi nga xam ne fasu trop tàng la fas bi nga xamante ne tey maanaam moo leen matt ba seen permis yi tàmbalee yàqu ak programme bon bi nga xamante ni ki ko jiital mooy Macky Sall mi nga xam mooy seen jiit ak ministre transport bi ko yore nga xamante ni toroxal li nga xam mooy transport lañ fi nekke bëgg leen indi permis à point di leen bundu xataal ba ñoom ñu bëgg a grève premier décembre ñun du man lu rafetlu choix boobu noonu te xam ni kenn ku nekk li mu man li mu moom danga ko koy jox mbajum kanam boroom moo koy fajal boppam bu la nit mbajee da nga koy tufli mbaj ko ñaari yoon xëpp ko suuf teg si Macky Sall daf leen tufli mboolem transport yu nekk Sénégal kon maa ngi ñaan képp ku nekk transport moo xam oto nga yore wala velo wala moto ku man di doon nga mbéj ko moom tufli ko xëpp ko suuf teg si ci élection yi ñu jëm jëm mille 2022 législatif présidentielle ku mu fiy teg nga foll ko pour transport mën a jëm kanam loolu moo waral ñoom ñu xam ni doomi Mbàkke Touba du ñu ko jënde doxandéem ndax galo ba doxandéem la Matar Diop doxandéem la ñeneen ñi si des waxuma seen i wax kon jàpp naa ni am nañ choix boo xamante ni ñoom incha allah choix boobu noonu bu ñu yàlla mayee ñu am ndam du leen gàccaal duñ leen rusloo man maay seen Baay Faal maay seenu avocat ci assemblée nationale ak si peuple bi dinaa taxaw ñoom. maire bi tamit li mu wax dégg nañ ko li mu war a def dana ko def fii ak deux semaines. lépp loo xam ay doléance la dana ko matale bokk li nga xamante moo la fi doon continuer ndax ku ne xam na ni jàkkataay li wax monsieur le maire moo génn un million jàppale na seen i kees am na ñeneen ñoo xam ne pare nañ pour ñu def loolu noonu équipe lañu nag équipe boobu noonu boroomi xam-xam boroomi mbooloo boroomi alal yaakaaru departement bi yaakaaru commune bi moo tege suñu loxo kon yaakaar naa loolu day na maanaam soit pour ñoom ñëpp askan wi porter soit boobu noonu ndax ñii tey bu suñu soxna di dem marché ñoom lu ñu dugg kilifa diine si ñoom ñu dugg kon jàkkaar naa transport mooy réew mi transport mooy département bi te kenn ku nekk da nga xëy yëpp ay client bu kenn ku nekk defee communiqué ci client ba nga yëpp xamal ko ne tànn mooy boo amee mbokk Mbàkke nan wote Abdou Mbàkke ndax bu dee département wote la Cheikh Abdou Bara Dolly yaakaar moom la Sénégal yëpp war a li nga xamante ni maanaam mooy li am solo ndax politique bi ñuy def politique développement la jàppale ñi nga xamante ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy transport yi te li mu ko waxee jiitu maanaam jote day jëkk jiitu man ba may ànd ak ñoom ñu bëgg maanaam pentre seen i taxi ma xar sama tànkutoo boobu nekkuma député bi ma nekkee député assemblée sax ar bu ma jëlee kaddu si transport ñoom laa doon wax ba si bërki démb commission bi ci mbirum transport laa doon wax te doon fa seen si base bi yëpp wax ak ñoom liñ man ñu def ko tey li nga xamante ne maanaam moom bu ñu gañee ñu ko def ndax loolu moo war liste yi ñu yor ñoom ñu dugal leen ci bu ñu yàlla dogalee ñu gañee commission de transport commune bi ñoom lañ koy jox commune de transport département bi ñoom lañ koy jox